jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV yi mbokki Serif Abdou Aziz Sy mu ngi doon di dugg si muy kilifa di boroom xam-xam tey danañ taxaw andi ay leeral ci muy combat Balla Gaye ak euh, Boy Niang danañ ñëw tamit ci diggante aji Sarr ak Sonko ndax ku ne xam na ne dem tribunal taxaw projet jot na mais balaa boobu sëriñ bi ñu ngi ko fekkaat ci njaq yi nga xamante ni fukki njaq la woon ak ñeent mais nee ma jamono jii. njaq yi dañ koo gën a yokk gën koo dolli tey danañ waxtaanee xam-xam danañ waxtaanee li nga xamante ni moom mooy njariñ gis naa ko nag mu teg lu mel ni ab indee def ci li nga xamante ni moom mooy ndox mbokk yi jëmm ji amul caaxaan lu mu la wax ci gàllaaj takku ko téere kii moo xam gàllaaj kii moo xam luy ñaan yàlla Sérif Abdou Aziz Sy dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi Sérif bi ñoo ngi lay jaar auzu billahi la hawla laa xawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim laa hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim alay dégg ñu lay nuyu bu baax di la ziyaar di yaare sëñ Medoune waxoon naa sax semaine damay génn waaw bu ngeen gisee semaine bi génnuma dafa am si li ma newoon dama demoon ci àll ba am lu mu fa doon def alay dëgg man bëgguma ñaanal nit ne sëñ bi li nga ma ñaanal gisuguma ko dafa kilifa bi ma jëflante loon mu ma sëñ bi ñaan bi am na fukki fan ak benn waaye gisuguma résultat ma ne ko déglu ma ma jóge fii dem ci àll bi am na fa juróom-ñaari fan ma def li may def aajom faju bugguma di jëflante nit te du faju looloo ma yóbboon ci àll bi ak yoo xam ne nii suñu maam bàyyi woon yu fa desoon moom laa jëli ñetti njaq yii yaakaar inde yi lii du inde lii njaq la yii yaakaar naa mosulee ko gis fii yii yi bees tàq la yii pour at bu bees bi la bi bu ñuy dugg képp ku ci laal wala nga jëfante man ma jox la ci uh-huh. di nga dem milliardaire si jiidina Muhammad sallallahu alayhi wa lu ñu wax na lu leer la uh-huh. lu ñu jàng la uh-huh. lu ñu xam la lu ñu tarbiye la bañ am ci ndigal. Mhm. alay dëgg lépp loo fi gis. waaw ci am ndigal. man du ma laalul lu amul ndigal. Mhm. tamit du ma wax lu ñëwagut. dëgg lépp li ma la wax. Mhm. bindal nga takk téere am na ñu may waxal loolu lépp lépp lu ma lay wax. Ah. utal bindkaay nga bind. Ah. man balaa maa wax dara dama koy xool ba mu leer man nañ ma doo la ko wax. du ma wax lu ma leeru kon bokkul ci sëriñ si caaxaanee seet. waaye seet du duñ ko caaxaanee ku koy caaxaanee da ko xamut. Mhm. man du ma dugg si dara si xooluma ko. Mhm. nee naa la ñu jàq ñi. Mhm. ñu sonn ñi. ñoo xam ne amatuñ yaakaar seen dund. man ñooñu laa bëgg a jëflanteel àll dëgg. te ñëpp ñu ma si jëflante ñu gis njëriñ macha allah la hawla wala quwwata illa billah. alhamdulilah du ñun nag. coobare suñu borom la. toujours ma wax la ko. lépp fu aajoom faju jaaree sama loxo bii. man du ma si parce que li may ñaan moomu ma ko sama ndey moomu ko sama baay moomu ko sama sëriñ moomu ko yàlla moom yàlla la ñuy ñaan na leer nañ incha allah mawla euh, sërif gis naa fi tamit ak kuur nga teg ko ci ron seetu bi euh, tey boo nee kuur mag ñi ku ne xam na ne seen xeeti gàllaaj yi ak seen yeen xeeti secret yi kuur def ci bokk kon fii bagage mag ñi moo fi nekk bagage mag ñi am na ñoo xam ne dañ leen di liggéey ba duñ mun a yëngu kuur gi ne wàllu rab rab lu la jàpp foo mun a nekk. su ma defee li ma def def ko ci kuur gi. ma jox la ko takk nga ko rab bi. rab moo sonal ñëpp. rab moo sonal ñëpp ci affaire rab alay dëgg. Mhm. sama loxo bii laa ko téye. Ah. loolu moom lu ma leer naññ la te ñu ma si jëflante ñu ngi may seetaan. ñoo xam ne ne rab di leen jàppoon. gis nañ bu may jëflante man. seen rab nu mu mel ak ñoom. incha allah. Euh, Serif Abdou Aziz Sy euh, tey boo xoolee bu nee euh, sëñ Abdou Aziz ñu ne borom xam-xam la bu ne sëñ Abdou Aziz nit ñi xam ne Fuuta mooy sa base ngay tukkulóor di borom xam-xam boo xamante ni tey ñi la yàlla booleel saa su nekk ñi ngi sant ñi la yàlla booleel saa su nekk ñi ngi gërëm gis naa fi nag tamit lu mel ne gën ak lu mel ne genre genre euh, tàgg sëñ bi ba tey bërëb bi tamit man xeeti gàllaaj yi ma fi gis duma dem benn kër sëriñ ba fekk ko fa. xam nga génn uh-huh. bépp gàllaaj bu la jàpp wala ñu ne dañ lay liggéey uh-huh. wala ñu ne kii am na yu nekk si moom uh-huh. boo toogee fii léppay dem nga ñàkk toog fii nga nekk bitim réew lu ma lay yónnee. dama koy defaale fii moo yónnee la ko boo ko laalee. Uh-huh. di xam na laal nga dara alay dëgg. alay dëgg néew ma si ay caaxaan. néew ma si ay caaxaan man si lu wér nag bagaasu mag ñi laa yor. bagaasu mag ñi nag ñu bëri ñu ngi koy wax temps yi bagage mag ñi bagage mag ñi ñoo <laughs> ñu xam nga xale yi bu ñu gisee ngay wax lenn rek dañ koy jéem a copier ñu bëri ñu naan bagage mag ñi laa yor mag ñi laa fii lañ ko jëlee man bagage mag ñi laa yor bu ma koy wax benn xale jógagul kon nag bu ñu fontoo bu ñu fontoo bagaasu mag yii fii la ne ku ko ñam di nga xam ne ñam nga Serif euh, ma bàyyi la ñu dem ci saal ba euh, waxtaanee li nga xamante ni moom mooy xeeti jàngoro yi ndax tawat yi bëri na feebar bëri na waaye liy sànq doomu aadama bëri na nga ne ma faj ak tawat yàlla daf ma cee dimbali may ma ci ba tey nit ki mën naa laa faj ba nga wér bëri na xeetu jàngoro yi fi nekk yoo xamante ni hôpital mënu ci dara. alaay dégg man mu nekkoon damay def reportage pour ñu ma faj. comme yeneen services yu ñuy def man du ma def loolu. mais billahi lazi am na ñoo xam ne ne woon nañ dee nañ. Mhm. newoon na ñoom amatuñu yaakaar seen àdduna tey ginnaaw yàlla ak mbaaxam doole yàlla subhanahu wa taala ak mbaaxam ñooñu am nañ tawfiq te ñoom dañoo waxoon dañuy dem si télé yi wax man leen ku dem si télé wax wala rajo baalu ma la àdduna ak alaaxira loolu man maa koy waxal sama bopp borom borom dëj mun na jooyal boppam dëjam ku faj ba mu wér du ci man na leer du ci man man du ma ci denn doole yàlla subhanahu wa taala moo ko jaara suñu loxo yi kooku am tawféex alhamdulilah incha allah alhamdulilah euh, kon sa ñu dem ca euh, bërëb ba toog waxtaanee li xew ci dëkk bi fi mi ngi noonu di génn euh, ndeysaan bu doxee rek sa xel dem ci borom xam-xam bu màgg boobee yàlla yàlla suñu borom yokk ay leeral muy kilifa di jàmbaar di ñaankatu yàlla sërif Abdou Aziz Sy mbokk yi tey danañ waxtaanee njëriñu gàllaaj danañ waxtaanee nit ki bu feebaree hôpital ne ko doo wér nan la mën a def ba wér jëmm ji toog maîtriser na xob waaye jëmm ji toog maîtriser na reen jëmm ji toog maîtriser na li nga xamante ne moom mooy xànc gis nga kook toogaay bu jekk bi da nga koy xool rek xam ne wàllu piir moo toog Cherif euh, ñu bàyyi la ñu waxtaanee jàngoro ji nga xamante ni moom mooy néew kattan. dégg alaaji alaaji dégg néew kattan. guddi yu ñu toll. boo konte woon téeméeri nit. téeméeri nit. ñaar ñoo ko si wala benn. te man lu ma yor nii tiitu ci. ragaluma ci ku ma joxoon gis nga résultat bi. néew kattan moom. yàlla dogal dañ koo téye suñu loxo. néew kattan. Uh-huh. dañ koo téye suñu loxo. Uh-huh. ñaari day gars yi dañ jaawale nag ñaar. Uh-huh. nit rab mun na la jàpp sa rab bu nekk sa soxna. mun na la jàpp indi la néew kattan. ngay faj néew kattan bi. fekk yow fajoo rab boobu nekk sa biir jabar. ba mu génn bu boo boo ko fajut boo fajee néew kattan ba mu wér boo delloowatee sekk ak soxna rek day ñëwaat. ñu ne sëriñ bi mënul dara. mën a dégg lépp looy dugg xool ko. seet walaay. dégg. seet. ku ko munut damal nelawi seet dañ koy jàng ba xam ko xam niki tabi am lan lay laaj. xam ba rab moo ko jàpp. man dama lay wax rab bi kañ la la jàpp ak bis bu ma la jàpp la wax ak heure bi. koo ñeme na wax. dama lay wax date bi. wax la bis bi. wax la heure bu mu la jàpp. wax la fu mu la jàppee ak li nga doon def yow bu mu la jàpp bi nga doon def ba nga yëg sa yaram foofu nga toog. allahu akbar allahu akbar. alay dëgg télé laay waxee télé. man yëfu mag ñi laa yor. Mhm. yoruma benn yëfu gone. yëfu mag ñi laa yor wax naa ko démb wax ko tey wax ko du ma ko tey di ko wax nag. alay dégg mbiru sëriñ du lu ñuy foowee du lu ñuy comité nañu jaamu ji yàlla ci jaamu yàlla si jaamu si soxlay jaamu yàlla yi nañu jaamu yàlla soxlay jaamu yàlla yi alay dégg affaire rab guddi mu toll ni moom xeju ma si kenn moom xeju si kenn rab ku mu jàpp. nga nekk fii si réew mi nga nekk bitim réew. Uh-huh. ma xool ko. Uh-huh. ma xam rab bu la jàpp. Uh-huh. dama koy jàpp rag bi rendi ko. nga am jàmm ñëpp am jàmm am jàmm. dégg naa rab dana jàpp jigéen sax ba tax benn góor du ko nopp wala ku ko bëgg a takk daal di dawaat. bu demee du ñëwaat. bu demee boo gisee jigéen bi nga dem ñëwaat rab bi mooy tourner sa xel mi. nga dem doo ñëwaat. alay dégg nga mbiru yi ñu la wax si mbiru ngóor ñu del si ginnaaw tudd si mbiru ngóor mbiri ngóor doo ñëw faj ko rek ki dama am problème ngóor rek nga jox ko garabu ngóor de koy xool lan moo ko jàpp ak nan la ko jàppee ak fan la ko jàppee bu ko defee nga xuus si loolu noonu nga mun a faj nit ki waaye nit ki dama am problème ngóor rek nga jox ko benn buti am naan ko suuf ak naan ngoon naan bëccëg loolu du faj dara lépp lu ñuy dugg ku la ko xoolalul mhm. ku la ko xoolalut. mu ngi lay nax. man na du ma laaj weexal. Mhm. li ma waxoon dama koy waxaat. Mhm. képp ku ma def sarax. Mhm. sarax kenn du ko defal man maa koy defal sama bopp. dëgg la ci lu wër. man maa koy defal xam nu ma koy defee. da maa am waxtu buñ koy defee sarax daa am wax ay waxtu. ci lu wër alay déglee su ma la xoolee a pare xam sa rawaan lu mu laaj damay xaar ba sa rawaan heure bu muy nelaw. ma génne sa sarax. leer na nañ mais nga bàyyi mu mu yeewu yow nga yeewu nga génnee sarax yi fi day gën tàng rek nga naan sëriñ yi munuñ dara. fekk yow mii ki nga dajal moo munu dara. waaw dañ koy segg xool ko. Ah. xam-xam du lu ñuy fooyee du lu ñuy foowee du lu ñuy comédie alay dëgg. Mm. nañ dem jàngi xam-xam. waaw. Euh, sëñ bi euh, gis naa fi tamit benn produit bu ñuul kukku nga def ko ci lu mel ne genre pot produit bi ci lan lay dox. lii noob la noob lu ñu wax noob. noob moo nekk nii. bii xam li lii dafa simple. Mhm. adduna bi toll na foo xam ne yëf da nga koy organiser. lii noob la góor mun na ko jël jigéen mun na ko jël. Mhm. lii ñu ma ko joxoon ñëpp. ñu ma ko joxoon ñëpp. Mhm. sant nañ yàlla bu baax. daa lay dégg nag waa Gambie nañ ma xaar wax naa maa ngi ñëw. waaye nañ ma xaar si biir seen bi incha allahu si kattan yàlla. maa ngi yegg si allah kon lii daal ku bëgg a téye sa jëkkër baa nga nekk góor bëgg a téye sa jabar yaa koy jëfandikoo. waaw alay dégg bii karité la. bii qualité laa ko defee am na ay mbir ci biir nag. bii macha allah xam nga du ma bëgg a toj yax yi bu baax. waaye ku ma ko jox dinaa wax noo koy jëfandikoo incha allah si kattan yàlla ak mbaaxam. si lan lay dox boobu. bii si góor rek lay dox man ngóor maanaam dama bëgg kër yi am jàmm gi nga kër. boo gisee xuloo yu bëri yi soxna si xuloo borom këram ak yéeg yëpp. maanaam biir kër ga mu am nu mu mel. biir kër ga bu neexee jaare yoon. Ah. kër gi day neex. boo gisee xuloo fajar yi. yaa ngi dégg ndaw si génn mere mere la mere la kër mere waa kër gi. daa lu tax. loolu tax nag ma loolu laay dindi ba mu jeex takk ñépp am jàmm. leer bi euh, tey euh, lii dafa mel ne cuuraay la. lii cuuraay la cuuraay bi mu ngi dem fu ne ci àdduna bi. cuuraay bi borom kër bu ne. war nga cee faggu nga def ko sa kër. cuuraay bi day ubbi benn. day ubbi seytaane. Uh-huh. rab uh-huh. lépp lu la mun a jàpp. boo ko suura di nga xam ne am nga loo suuru. di nga tiisal tiisal yoo gën a allah moom la. kon cuuraay la am na solo ay ca mbokk téléphone Serif Abdou Aziz mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek da ko jot sëñ bi jàngoroy prostate nag dégg naa jàngoro jooju yebu la parce que da koy faj ba mu wér ci doomu aadama bi. alay dégg am na ay góor yu bëri yu ma fekk si hôpital dama fekk hôpital yi. Uh-huh. ñu amee woon prostate ñu defal leen seen uh-huh. la. li ngeen wax lii génnul réew mi lépp si réew mi lañ ko amee alay dëgg prostate moom 21 jours laa lay may. nga wér peng bu nekkoon da nga defal ay raakol da koy dindi. prostate nag lu lay dalee lu mu xamee yaa ngi amee prostate saw yi day bëri. te boo demee bay tuur ndox. balaa nga génnee sa aaroon ndox mi génn. loolu mooy prostate. wala minute minute minute minute bu jóg nga dem sawi nga dem tuuri ndox dem tuuri ndox. boo ko amee rek. xam la yaay prostate mu lay yot góor bu amee quarante cinq ans quarante ans na lii même bu amoo prostate ñëwal nga jël si lii nga fagoru nga xam di nga mun a dem ba téeméer at dara du la daal incha allah bi isnillahi taala euh, Serif euh, ba tey euh, sachet yi ay sungu fa ci nekk bii moom bii mooy biir buy daw bi bi boo ko naanee mhm. di nga gis ni lu nekkoon sa biir bi ay lumb lumb day génn di nga nelaw nelaw nelaw yoo gëjan nelaw alay dëgg alaydeggi eɓe ƴawi ƴeewi a gandal ɗum ɗo ko mawɓe ɓe gacci ɗum ɗo kala ko kalmi min kala ko kalmi koye mawɓe guittimi ɗum amul dara luma fi créé luma sos te luma fi def yëpp samay kilifa ñu ngi dund ñu koy seetaan alay dëgg yeɓe jaaɓe ñangoya gandal gandal koko jangate man dama koo jàng. dama koo donn samay waajur. lépp laa boole ak yu ma uti. yu ma dem uti biti réew. alay dëgg nañ bàyyi caaxaan te jaamu yàlla. nañ bàyyi caaxaani te jaamu yàlla si jaamu yàlla ci jaamu ci soxlay jaamu yàlla yi. Ah ah. incha allah euh, Cherif euh, bu fekkee ne euh, ki nga xamante ni dafa bëgg ay këyit loolu moom dama lay poser question rek mais ñi nga jëflanteel xam nañ ne papier yàlla daf la cee may. papier am na secret bi ma lay jox. Ah réew bu ngeen nekk. drapeau réew ma ngay lakk def ci. balaa sangat bi jeex ñu woo la. bi am na dëkk yoon nag boo lakkee seen drapeau ci kaso bi ngay dee. ma ne drapeau réew mi ngay lakk boole koog sangat bi. drapeau réew mi ngay jàgg lakk ko boole koog sangat bi balaa semet ñu woo la ñu ne kaay jël sa kayit. alay dégg seen laay waxee un peu ñëpp ko seetaan man néew ma di waxantu néew ma di lambatu dama koo téye maa sha allahu la hawla wala quwata illa billahi lay azim insha allah wa insha allah si kattan yàlla sëriñ ba tey sachet yi tamit da nga gis ne lu leen raxas naq bi la bii moom yow moom yi war nañ laa fay parce que dimbale nga ñu bëree bëri bëri ci waaw ci lii lii moom raxas naq bi moom ma macha allah def na effet yoo xam ne tabaarakallah laa hawla wala quwwata illa billah ah. lépp nag coobare ñu borom ñun duñ lépp aajo bu faju ñun duñ ci lenn lu may wax lu ma moomul sama baay moomul sama ndey moomul yàlla lay ñaan mm-hmm. waaye nag xam nañ buntu bu ñuy jaaree pour jot suñu borom subhaanahu wa taala mm-hmm. waaw loolu yàlla dimbale ni incha allah Cherif euh, euh, Abdou Aziz tey nit ñi ñi ci ñoom dañoo tëju te xam lu leen tëj umu umu lu garaaw luy dindi umu. umu moom umu sax rab dina ko def. mu nga ànd ak rab mu lay yàqal sa àdduna di yàqal sa di la yàqal sa alal. Uh-huh. te xamoo ko alay dégg alal xam nga la nga ci moom. Uh-huh. yére bi nga ci jënd. waaw ak li nga def si jëmmu ji. Uh-huh. ak li nga def si njaboot lu lu leneen yëpp ñeneen ñee ko moom. nañu génnee seen alal yi ñu def seen yaram yi. nit bul denc ay millions ngay feebar di di nay nal nit du nay si boppam. boo gisee ku nay si boppam bu deewee mooy gis ngiy dee nii si alal gars yi di ko foowee di si def lu leen neex mm-hmm. nit doo nay sa bopp nit dangay ngay defaru da ngay ñagu mm-hmm. ba dara du la mënuy bënn waaw fa laa toll sëriñ bu fekkee ne nit ki nga xamante ni ah, day toog ba ci yàgg mu leer ko ne moom mii dañ koo takk xala ku bañ ko la takk xala parce que jigéen ci biir loolu lañ xewal de lii nii mu nii solution baa ngi nii uh-huh. lii nii uh-huh. boo ko laalee jeex na kenn mënut a takk xala boo ko laalee jigéen fu mu toog dina takkal du ko defaat ku jigéen ki tamit boo ko laalee sa jëkkër uh-huh. bu ngeen jaxasoowee uh-huh. xelam du nekk si beneen jigéen ku yow kon kii dafa ànd lépp ngi fii mu ngi nii solution solution baa ngi nii uh-huh. ala dégg man damaa ñëw pour dimbalee jaamu yàlla seen soxla yi ñu sonn ñi ñu jaaxle ñi ñoo xam ne amatuñu benn yaakaar seen adduna ñooñu laa bëgg a jëfandikoo ala dégg ay ci kon mbokk yi numéro téléphone u Serif Abdou Aziz Sy mi ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot tey jigéen ñu bari ñu ngi ci kër yi di sëy surtout këru famille seen wujj wala sax ah, seen njëkk yi def leen loo xamante ni mënuñoo am doom ca kër ga bu dee jigéen gu am jafe-jafe am doom wala góor loolu moom si kattanu yàlla góor ak jigéen yëpp su nekkee yéenay sëy am na secret boo xam si ginaar laa koy def uh-huh. am na yu muy àndal yooyu boo ko defee ngeen woor ba ngoor ngeen ndogoo loolu bu si kattan yàlla fekk ndaw saa ngi ne si yàlla doom dama sos incha allah. kon xam ne 2023 lañ nekk mu nekk at moo xamante ni am na nag sëriñ su ne dana tàng mais tey bëggoon nañu xam yan xeeti sarax la nit ki saraxe mën a am jàmm ci année bi. année bi année jàmm kese la. Ah. ma ne sëriñ bi nit ñi nañuy waxat jàmm si réew mi. soog ah. si télé nga naan dëkk bi dina tàkk yow bu dëkk bi tàkkee doo si doo si mucc di. <laughs> Ah? bu dëkk bi tàkkee doo ci mucc. bu dëkk bi yëngoo doo ci mucc. kon nag dangay ñaan dëkk bi am jàmm. na ñuy am jàmm. na ñaan jàmm fu ñu toll ci réew mi. tey wax jàmm seen làmmiñ yii. naan diw suba diw dina deew ak suba diw dina def lii loolu baaxut. nañu bàyyi yooyu yëfu caaxaan yooyu. nañ ñaan si réew mi te réew mi jàmm rek moo fi am. jàmm moo fi am réew mi dina bu yëngoo bu tàngeek bu ñu defee lu neex. jàmm rek may am si réew mi. loolu dañ koo ñaan suñu kurus yii ba yàlla nanguñ ñu ko alay dëgg. Uh-huh. kurus du caaxaan. dëgg la lii ginnaaw yàlla ak yonent bi lii mooy réew mi. mais Sonko boolam yooyu muy tëgg nga yaakaar mënta yàq dara ci ci réew mi. yooyu du si wax. ah mais lu toll ni 31 décembre. wax ma ne. rëng-rëng gi foofu du ma si wax dëgg yooyu du si wax. lu tax loolu réew mi moo fi am. ku bugg a indi réew mi fitna da ngay génn réew mi alay dëgg. Mm-hmm. yooyu du si wax. mais réew mi fii. billaahi alladi laa ilaaha illaahu jàmm rek moo fi nekk ak dal. loo ëmm nag ci fitna ak ci problème. di nga dem ak moom. waaye réew mi fii. jàmm rek moo fi am. jàmm la ñuy naan te jàmm jooju la sërif ne moom rek moom moo fi am euh, sërif tey nit ki des fois mu toll ci période boo xamante ni da koy leer ne moom mii dafa am gàllaaj des fois nit am gàllaaj xeetu am gàllaaj goo xamante ni moom ci boppam da koy xam xeeti galaaj yooyu yan façon galaaj la. ginnaaw gi yàlla wóolu yonent bi wóolu say waajur. am na xeetu galaaj xam su ma la ko joxee. Mhm. dégg bul tiit. ginnaaw bi nga wóoloo yàlla. wóolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam. wóolu sa ñaari waajur. galaaj googu suma ma la ko joxee. dëgg. lu waaye wax dugal si làmmiñ. la ah. alaaj dëgg. gars yi nañ xam-xam-xam du du ay caaxaan. alaaj nañ jàngi xam-xam du ay caaxaan nañ xam-xam daal. xam-xam mooy lépp. mooy lépp mooy daj dëpp gi mooy solution bi mooy lépp. dëgg la balaa ngaa dugg si mbir seet ko. xool ko xanaa yow doo dem hôpital nga ne sa euh, docteur bi faj ma rek te dagul la tëggi deful la consultation nero piqûre la nga dem. boobaa nga ñëpp faatu. lépp lu ñu dugg dañ koy xool. adduna dañ koy organiser. mais du tëllëg di wax fee di wax fele di wax yëfu yëfu gone yooyu nañ ko bàyyi. dara jaru ko dara ko yëfu ko bàyyi dara jaru ko. Euh, Serif Abdou Aziz Sy lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV. mais looy jaamu yàlla si jaamu yàlla yi. nañu jaamu yàlla si jaamu yàlla yi. nañu jaamu yàlla si jaamu yàlla yi. nañu jaamu yàlla si soxlay jaamu yàlla yi. waaw. alhamdulillah alhamdulilah alhamdulilah mbokk yi dégg ngeen waxtaan am solo wi Serif Abdou Aziz Sy euh, waxtaanee tey muy koo xamante ni doomu Fuuta la tukkulóor la waaye surtout yonent bi sallallahu alayhi wa salaam la kon kii mbete bete la ci mbaax waaye bete bete la ceew askan boo ne tukkulóor yi xel yëpp dem ci alxuraan soo ne yi xel yi dem ci Cerno ah, mi nga xamante ni tey yaakaar naa lu ne def na ko ca Fuuta waaye boo ne tukkulóor yi ñu dem ci jaamukatu yàlla yi da leen fay fekk waaye boo nee sërif xel yëpp dem ci Seydina Mohamed kon jëmm ji toog mën nañ ne bete bete la ci aw askan muy ñaankatu yàlla di borom xam-xam di gëstukat waaye di baaxkat waaye di fajkatu aajo. ayca numéro téléphone bi mi ngi doon affiché képp ku ko ci woo sërif daa am lu. ayca mbokk yi numéro bi mu ngi doon affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy Mouhamed Rasulullah